si njiital Serigne Ousseynou Fall ñu yem ak mbégte di waxtaan ak yéen suñu diggante ak euh, Cheikh Abdou Aziz ak Cheikh Tidiane mi nga xam ne ñoom la ànd ak liggéey bi ñoom lañuy ñuy nuyu di sant ñoom nag daara ji wandaatër yi di xandal ñoo ko fi indi am nañ xalaat yu rafet si biir daara ji daara ji nag mi ngi gis ngeen ko ko gisee waajur bu si am kaddu wala képp koo xam ne yaa ngi si liggéey bi ñoo ngi sàkku taxawaay ak dëgëraay ba mu gën a mën a jëm sa kanam bu baax a baax di sant ñoom si Abdou Aziz gis nañ seen taxawaay ak mboolem ñi nga àndal euh, soxna Bousso mii moo fi teewal parents d'élèves mooy daara ji internat bi ak franco bi kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm si baax euh, di sant ñoom si Abdou Aziz ak Cheikh Ahmed Tidiane ak mboolem seeni i partenaire ak mboolem ñi leen jàppale. nag seen yëg-yëg gii ñu def yëg-yëg bu am solo la ndax soxla woon nañ ko bu baax te daanaka dafa mel ne mbake gii nii daara yi moom daa si gannaaw man bu ma neexee wax ko ndax ren mooy sama vingt ans si jàngale alxuraan quatre-vingt-dix-neuf laa tàmbalee jàngale wante bunt bu ne fëgg naa ko moom ba dama mujj toog rek di xaar alxuraan. kon ñoom biñ ñëwee Abdou Aziz jaaku Cheikh Tidiane dama leen nangul loo xam ne lu ma wut cinq la ñoom ñu ñëw def ko ci benn fan mu ne mu nekk lu rafet luñ am dongo yi ngoon bu masaana jot day ñaqutooy xep ba lu ñoo ñibbi te yi moom wàññeeku na kon ñoom jërë ngeen jëf ndax tey ñu ngi fii ci poste santé bu gaawaan bi di poste municipal ginnaaw bi ñuy àggalee par dañuy ziare maam Cheikh boroom borom gaawaan di ziare le imam bu daaru salaam muy sëñ bu Mbacké mi nga xam ne kenn du moom macha allah tey li ñu indi euh, sage femme bi moo ñu cocté woon wax ko Cheikh Tidiane Ndiaye bi nga xam ne kenn du moom moom it di sama waaye di sama xarit di sama doomi lay expliqué woon ci coalition Mbacké Bawol daan ne bureau bi ku fi dugg dugg ngeen fi gis ngeen ko ni mu tàngee ak salle ni mu tàngee ak ni mu mu ne woon bëggoon na ay clim clim yu ñu ko fi defal moom lañu indi woon tey ci social comme ni ñu koy defee ci fépp rek indil ko ko fii pour montel ko fi loolu moo ñu fi indi woon tey bi ñu ñëwee ndeysaan mi ngi daw di dikk mais comme ñun dañu xaw a yàkkam ci tuuti ci dafa bëri mu mu mu représenté sage femme am ne na ko assisté représenté ko en attendant muy agsi loolu moo ñu fi defuñ ci ngir lenn luy mbirum politique lu dul yàlla tax muy social parce que war nañu fii ñi fi accouché ñëpp. ak ñi fi nekk ñëpp suñuy njaboot lañu te daf ñoo war te daf ñu cee fekkoon comme sollicité nañ ci ne wax ñu ko nag ñu ne il faut que ñu indi ko comme niñ ko daan def bi ñuy tabax maternité bii yaakaar naa ay tonni ciment jaar na ci man ak ay fer ci turu Cheikh Tidiane Ndiaye ñu indi ko fi loolu ma fekkee woon looloo xam fekk na ak ñeneen ak ñeneen bonne volonté yu bëri yoo xam ne ku ci nekk def nga fi baax nii la rek li tubaab di wax union fait la force waaw mbooloo mooy doole nañ jàppalante ñun ñëpp yu mel ni daal fu ñu ko dégg nañ jóg def ci suñu loxo te kenn bañ a xeeb waaw loolu la woon waa kontaan nañ si bu baax ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di kontaan bu baax di rafetlu tamit si acte yi ngeen ñu defal parce que lii soxla nañ ko bu baax ndax ventilo yu yu la ñu fi amoon am na si saal yoo xam ne amul sax ventilo tàngaay bi te bureau bi fi la ñuy accueillir malade yi fi la ñuy liggéey kon soxla woon nañ clim bi heure bi mu ñëwee temps am la ñu ngi kontaan bu baax di leen remercier ci acte bi ngeen def Euh, di leen ñaanal ngeen am ay xéewal ba mën a def yeneen ak yeneen ndax soxla nañ ko. ngeen ko soxla ku dul ci euh, bi ñuy fanaan ndax dañuy def 24 heures ci salle bi la ñuy fanaan boobu tamit amul clip tàng na ak salle d' bi. bu ci bi ak salle d' bi kay yëpp soxla nañ ko ci parce que fa la ñuy liggéeyee tamit. Mm-hmm. ñu ngi xaar daal yeneen pour ngeen gën ñoo jàppale rek ndax soxla nañ ko incha allah. bon tey nag. tey bésu social la euh, la coalition Mbacké Bawol dafa ëmb ñaari mbir ñaari tànk la amee benn tànk bi euh, social la muy pied gauche mais pied droite euh, politique la mais tey dara yëkkatuñu bu dul social ndax je crois am na fu ñu njëkkee fa ñu njëkkee mooy fa nga xamante ne mooy Daara Touba Aljana ñooñu it dafa am lu ñu doon sakku sa seen càkkute googu nag. Euh, munuñee waxuñu ne def nañu lépp mais lañ nga xamante ne moom la ñu énuméré woon ne mooy seen soxla bu jàmp euh, tey jox nañ leen ko fii nag euh, fiñ fi taxaw tey lii itam muy climatiseur bi lu leen soxal la woon tey def nañ ko mais ci ginnaaw gi déggaat nañu ci même jour ci léegi ñu taxaw nii déggaat nañu lu gën a prioritaire loo xamante ne digge nag bor la mais dañ leen di assurel ne Euh, salle d'accouchement bi euh, dara gënu koo tàng dara gënu koo tàng léegi lañ ko dégg mais def nañ ko sunu ité un jour viendra dinañ fi dellusiwaat dans les prochains jours mais lii du gulet pour la coalition Mbacké Bawol parce que euh, bu ngeen demee centre de santé bu Mbacké fil téléphone sans fil ya fa nekk ñoom ñoo ko def ñun ñoo ko def la prison aussi lal yi fa nekk ñun ñoo ko fa def Euh, climatiseur ya fa nekk ventilo ya la coalition Mbacké Bawol moo ko fa def la police de Mbacké téléphone sans fil ya fa nekk la coalition Mbacké Bawol moo ko def ak leneen ak leneen loo xamante ne aajuwul sax parce que social comme toujours yi ñu koy faral di waxee ak ni coalition bi di doxee social aajuwul médiatiser mais tey lii da loo xamante ne pour que ñu médiatiser ko parce que lii Mbacké yëpp képp kuy doomu Mbacké dëkk Mbacké même doonte résidé domicile woo à Mbacké résidé woo à te dégg lii nga xamante ne ci wér-gu-yaram la jëm mu manqué fii boo ci mu nee dara nga indi ko moo tax tey ñu préféré indi média bi ñun la coalition Mbacké Bawol ni nga xamante ne euh, def na ci euh, lii nii keneen aussi nga gis ko nga apporter sa soutien ni ci daara bi même aussi ni ci dispensaire bi centre de santé bi loolu daal moo ñu fi yëkkati woon tey